jërë ngeen jëf mbokk internet Sénégal seet tey jii di 10 septembre 2024 mu mel ni rek euh, drame bi nga xamante ni moom moo amoon fële ca Mbour euh, jamono ji nag am na li nga xamante ni moom mooy rebondissement euh, ni ki tey nag daal dinañuy repêché lu tolloog 30 corps sans vie yoo xamante ne ni daal dinañ leen di gis tey marine bi nga xamante ne moom moo lëkkaloog waa sapeur pompier daal dinañuy gis lu tolloog 30 personnes ci ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo desoon ci gaal gi des nag ñu continuer di leen seet bu baax baax a baax jamono ji plage bu Mbour tefes ma nga dell ak nit mu ni rek mbir mi métti na lool ndaxte bi ñu xamante ni moom mooy les premières heures jotoon nañu am ñeenti personnes yoo xamante ne ñoom ñoo ci daal di nekk ay rescapé yeneen ñeenti personnes yoo xamante ne jotoon nañu dee ñoom la ñu njëkkoon gis ci li nga xamante ne moom mooy gaal googu nga xam ne yàpp na presque deux cent personnes jamono ji ñuy wax yéen nag ñoom ñu ngi continuer rek di xel di war ñi nga xamante ni ñoom ñoo des ndaxte suñu sukkandikoo ci information yi nga xamante ni am nañu ko fi nga xamante ni fa la gaal gu suuxee mi ngi tolloog 4 kilomètres ci biir li nga xamante ne moom mooy géej gi ñu jàpp ni rek xëy na bu ñu war barale li nga xamante ne moom mooy jéego yi ñu ci des dinañ leen mën a retrouver di ñaan yàlla yërëm leen yeesal yërmande seen kaw di leen jaale bu baax a baax di ñaan yàlla rek li nga xamante ne moom mooy émigration irrégulière bi ñi nga xamante ni ñoom ñooy les autorités étatiques ñu daal di ciy indi ay saafara laata mbir yi di gën a jéggi dayoo jërë ngeen jëf